comme nous ñi lu mais au XXIe siècle ñu avons courant amu Nous ñu au XXIe siècle Nous courant tu ne peux pas le comprendre. Nyako courant nyako courant pour maintenir ba expliquer la parce que la haute tension est juste à côté de nous mais ba courant bi dëkk bi courant à part solaire la comme niñ ñu ko gisee euh, dans les différentes communes loolu gis na ay quelques poteaux waaye nak ba léegi dëkk bi amul branchement de euh, social de euh, la Sénélec courant mo safono aɓe mankono mbasate konne bari am o min ka ndew ko buka mala jam o buka mala jande manam ye fil de tension ne tambindinna ya samba dans les sacs communes ya jindi woto donc mankono ma soto folo pour le moment comment faut-il faire qu'au 21e siècle ba pas qu'à ñu ñëw installé ñu ñëw eh, teg poto yi ak fil yi ba léegi courant mënul wàcc Mankonomba man loolu mooy sama combat maa ngi on est à presque à 45 degrés fi. courant amul bo duggee si biir néeg mënoo fa mënoo fa nelaw du dëgg du yoon le même moment qu'on trouve au Sénégal nit ñi di détourner des milliards et des milliards donc ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à rembourser suñu milliards yi ñu wàcce fii euh, nu mu tudd courant si dëkk bi fii si biir Pakaaw dëkk village yëpp au Sénégal ñëpp am courant. voilà donc loolu moo gën a loolu moo gën a kii nag loolu moo loolu laa loolu man loolu laa comprendre ba léegi. parce que moi je crois que projet boo ko joxee nit boo joxee nit projet da nga koy da ngay signé nga ne ko tant milliards la. ngeen signé tant milliards boobulu léegi man je crois que euh, comme courant bi euh, on avait parlé de Carrefour jusqu'à euh, de bon Diané Malarine jusqu'à Sakar ou bien plus que ça mais comment faut-il faire que ñoom dañuy ñëw ren yi wala élection législative bu commencé dañuy ñëw sans photo yi après élection euh, municipale yi ñëw ñu ñëw euh, euh, euh, comment comment dire ça ñu ñëw ñu ñëw voilà panneau solaire et la fi nga fi nga courant ngay teg ay panneau solaire loolu je crois que y a quelque chose lousse bu nekk si si si si si biir loolu donc lu ñu lancé rek mooy courant bi dañ ko soxla fii balaa un mois askeno d'ici de nouvelles euh, d'ici euh, trois mois ou bien deux mois ibe courant jindi la jane parce que nga nouvelle o sorono mbe dakar ko central o min ke be marsendi ya dinko sinjanne mais nanani sante mambe occupéri man jejeno mais je crois ko dinko sitta banko banko kan wala sate o sate do wol mu couranti o leti te manke no la courant mbe jikiri nyina dans trois mois courant askeno ay e soto janyi sate ndo o mun ye sewo bati l'accès à l'eau potable tey jii euh, matinal bi en un certain moment nag ñàkkum ndox d'ailleurs nemmeeku nañ fi muy xamanteni mom modi l'eau potable puisque robinet dafa daal di tëjoon en certains certain moment waaye nag loo xamante askan wi si teen lañu la ñu jublu pour mëna a am lo xamanteni mom modi euh, la source vitale jamono joo xamante nak des milliers de personnes convergent na foo xamante ni moom ci bi les cérémonies euh, religieuses boo xamanteni daan nañ ko organiser. Euh, comme li ñuy wax ci courant rek ndox aussi c'est la même chose je crois que yéen gis ngeen ko boo leen tourner fii ci biir dëkk bii ni foo leen dem rek vous allez trouver que ay teen la ñuy ba ci je crois que ça c'est ça c'est vraiment euh, inacceptable on peut pas aller comme le ma wax rek le commencement au 21 e siècle boo ñëwee dans des villages dans des communes nga fekk jigéen yi ñooy ñooy ñooy jël paan di dem root ndox di ko yóbbu ci biir kër yi donc tu ne peux pas dire que yaa ngi lutter pour la santé ni ñi ba léegi ñu ngi naan ndox ndox directement donc forage la ñuy soxla ñun am nañ fi forage mais forage boobu on ne sait même pas ñaata at la am on ne sait même pas ñaata at ñaata at la am da ngay jël xaalis jënd jënd essence euh, talik, tal affaire bi ndox bu mu bu servir village bi ndox boobu yëpp mënul ñëw parce que forage bi dégg naa dafa bon bi donc nous encore Nous bañ jël bi côté côté côté Casamance ça fait partie du Sénégal. bon ndox moom mooy loolu mooy lépp ndox moom parce que pour te dire que ndox amuñu ko euh, bopp robinet ñoo mais pour nga am par at voilà par mois wala par trois mois wala par événement ngay am donc dès bu tolloo presque beaucoup d'habitants i buka jio sotono i be min il be min min na i buka jio sotono i be kula min na fo euh, des teen d'eau, des dizaines de mètres pour puiser avoir l'eau pour laver ou bien pour faire des choses donc euh, c'est tout à fait difficile euh, dañu soxla ndox ak courant ku ay ay ay forage yu bees soxla té courant mom duñu xaar courant mom on n'attend même pas man je ne peux pas comprendre que autorité dañuy ñëw ci dëkk bi di nekk fi di naan wuy euh, ñu ngi si waxtaane ñoom il sait très bien que mënu ñu ci dara mënu ñu ci dara ñu waxante dëgg rek comme financement bi joxé nañ ko ba paré ñu jëlé xaaliss bi ku ko ku ko ku ko luubal rek ñu japp la nga fay ko ku ko détourné rek ñu jël xaaliss bi delloo ko ñu waccé courant fini surtout moom village la Mankonomba mooy pakaaw Mankonomba d'après o koola Mankonomba même mala défauti ala jëfé jëféti ana la euh detoo wole mu courant fulanjaŋo jiyoo ci loolu nag loolu courant bu amee ndox boo xamante ne dañ koy wax ni ñàkk na fi day daal di nekk loo xamante ni moom moo di mën na wàññeeku puisque château d'eau bu fe forage bu fi nekk forage boobu nag ñun bu ñu ko année bu ñu ko créé ba léegi mënuñu jàpp date bi puisque ça trou sa ça dépasse déjà notre naissance donc loolu ba léegi moom moo fi nekk bari ay panne bonjour ñu jëlee loo xamante ni moom chargé ndox quelques temps là rek après ndox bi day de manquer ci robinet bi ñëpp di manko dem wuti ji yoo mo modi ndoxu ten jamono ji aujourd'hui nous sommes partis jusqu'à 45 degrés et la température la chaleur est intenable mais vraiment euh, bi ma tourné ci bi dekk bi sax dama yërëm wa dekk bi parce que ak tangor bi ni on dit que ba léegi courant bi euh, euh, mënuñ ko wacc ci village donc là c'est c'est difficile à Mankono ici pour vivre donc euh, na community mbakundula dami wolemu courant jio ni ñoo soto uh, mbe sewola baake ma kono ba nekk le centre du pakao centre du pakao nag boo leen ko déggee moo di ñoo xamante ni ñoom ñëw di wut si foo xamante ni moom moo di ñaan sur le triangle des trois villages du pakao muy pakao ma kono fu ñu nekk nii boo fi jógee nga dem Pakao Daasila mais boo fa jógee nga dem foo xamante ni moom moo di Pakao Sumbunu nga daal di mujjee foo xamante ni moom moo di Mankonomba nga daal di julli juma daal di ñibbi dëkk bi nag année bu xamante ni bu ñu ko créé nag officiellement amuñu xamante ni moom moo di de façon officielle officieuse la ñuy wax parce que boo leen laajee dañu la naan ay neuf cent et quelques ans waaye nag loo xamante ni loolu la ñu bind euh, de façon officielle tamit mais ñu ngi koy laam-laami di naan depuis ay 1900 quelques années là donc mais kilifa yi nag loolu dañ ko daal di rejeté catégoriquement Mankoumba jamono ji nag mu am plus de 4000 habitants am benn école élémentaire bnsm sem waaye nag jamono ji jamono ji la richesse du village est concentrée vers loo xamante ne moom l'agriculture la la pêche ak loo xamante ne moom l'élevage di jamono ji ni moom moo euh, la commercialisation du la commercialisation du noix d'acajou jamono ji nak loolu traite bobu noonu lañu ñuy daal di jógee kon ñu nga xaar loo xamante ne la saison des pluies saison des pluies bobu nak bu fekkee ne loolu commencé na nag dëkk bi pour ngeen fiy tassé ak ñu xamante ñom ñoo di euh, habitants ici ici si euh, si kër yi day daal di parce que ñëpp dañuy daal di jublu dem fo xamante ne moom moo di tool puisque c'est l'unique source de revenus de la population. Il n'y a pas d'autres sources de revenus à part l'agriculture, la pêche et l'élevage. ka fɔ molu ŋali kɔntɔn kolen na jaliya silola i ye kanbɛn ka fɔ wo di